ana gaalug transhumance gi moom fan lay tere ak kañ lay teer ñàkkul na laaj bu di mel moo soxal yéenikaay gi di le quotidien xëya ko tey ak ndaje ga woon démb ci sampe fukk directoire bu campagne président de la république loolee nag daanaka amul lu ci ak yeesal ànd gi nag dégtal ñuy kàddu njiit réew mi moom yéenikaay gi di la le quotidien président Macky Sall nag daganal na dëggantaan baatub transhumance gi mu masoon di araamal ci njël njëlbeenam ba mu jotee njombaxtalu ka nguur gi tey jëlee nag baatub transhumance googe la yéenikaay gi ne président Macky Sall nag daanaka sax bëggatu koo dégg métti ci ay noppam la mu leen jàppeekee ñoom ñi koy wuy si bàyyi seeni parti ki mbootaay mooy dañoo doon ñoo xamante ni nii nag dañoo dogu ngir liggéey seenupp réew yéenikaay gi ne transhumance yi nag am nañu avocat bu mat sëkk li mu doon te du kenn ku dul président Macky Sall taxit nag mu soññ ay ñoñam ci wàllu ko yaatal gi ànd ak tamit ñemeloo leen ngir fa ñu bëgg yeggal réew mi ëllëg ci biir ci wàllu ko yokkute waaye tamit di moytandikuloo transhumance yi moom président Macky Sall ñi bañ a tontu ñi leen di xalabaka diingat ak dëkkee di leen tifaare saaga baatub transhumance amul yéenikaay gi noonee la ko daal di tënki coowa transhumance gi lëmbee réewum Sénégal jamono ji la nag di màngaan ci wàllu ko politique kenn yëkkati wu ko fi ku dul Aïssata Tall Sall ki ñu doon wooye ci ay jamono gaynde ga ca Podor ngir fitam ak njàmbartem tey nag ay mbootam weeru na fang ñu bari ci askanu wegeel ga ñu amoon ca moom dindi nañu ko ci yéenekaay gi Les Échos nag ndey mbill gi moo tontul boppam ànd gi nag di leeral lu bari ci jubluwaayam ci wàllu ko politique moyul nag ñi koy ŋàññi ci taxawaayam jàpp moom moo tànn aw yoonam te amul lenn lum ci rëccu ànd gi nag ubbi na ay buntu waxtaan waxtaan ci képp ku mu mën di doon ba mën a firndeel ne tànneefam gi nag lu jaar yoon la Aïssata Tall Sall ba muy dumooyu ku jëkk politique gi fa la bàyyi Ousmane Sonko taxaw tem ngir ñàkkanteeg président Macky Sall moom nag àllu na ni ki démb ci ndaje gi mu doon amal ak waa avenir Sénégal bi ñu bëgg fas yéene lëngoog moom ci jongante yi taxit nag njiitu Pastef dal di ci sukkandiku ne réew mi ak li ko jatanka ci ay jafe-jafe ku dugalul sa loxo ci togg gi ngir ñu mën koo soppi na nga jàpp ne ànd nga ci yële ñaawteef te la ci njëkk lépp lu di ay jikko yu baax doon lu ñu ràññee réewum Sénégal lépp màbb nañu ko ak lañ fi dëgmal ci jongante palum njiit réew nag ku ci nekk jël saw fem bu dee wàllu ko transhumance gi moom la nguur gi tànn ku jëkk politique gi moom wàllum lëngoo la jox bopp ndax ku ci nekk dana la jig am déet laaj bu ne mel la Sud Quotidien sampal professeur Moussa Diaw borom xam-xam bu mag ca université bu Ndar ma ngay xam ne dañoo nekk ci wàllu ko wujjalante ak rawante ci wàllu ko jongante bi waaye nag taxul kenn jiitoogum borom xam-xam bi di leeral ne nguur gi nag la tax mu wëtali ku jëkk xayma bu jaar ci yoon ànd gi nag ku jëkk politique yi dañoo dammati ko mat li mat a leeral kay mooy tollaayu ko politique yi jamono jile buñ ci dañul suñ wàllu ko démocratie dee na sax yokk ci askan wi bët bu ñaaw la ñuy di xoolee nitu politique moo ne day jamono yi ñuy sëgg ci wàllu ko politique yi ak coow lu ne cobboy ndakaaru njaay ak li ko wër askan wi fii yeewoo ëmpale nañu sax de aw maru métti mi ngi leen di yot ti bu kër Momar Sarr paanatino a UNATES di amal moo toj tuyau bu kër Momar Sarr waroon a jox ndox Ndakaaru Rufisque Pikine ak Guédiawaye li leer nañ di jant bëccëg kay mooy combat bi war a dox ci diggante Modou ak Eumeu Sène sunu lamb yéene ne saison 2018 2019 ji dana jax lool ak ay affiche yu am solo ginnaaw benn fan ci weeru ko février gi ñu jëm promoteur bi di Moustapha Diop dana tànk ci lu mujj combat bi war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Modou Lo fekk na waa Mbour di laaj Balla Gaye numéro 2 Pape Dia manager bu B52 dëggal xibaar bi ci yéene kaay gi beneen combat bu waa axlu nar a bégee mi ngi war a dox ci diggante Ama ak Siteu promoteur bi di jéey war koo tëgg ci yéenekaay gi ne sori nañu ci waxtaane cachet bi di koppar yi ñu war a teg ci taabal ji